nga ba nga préparé ko fu ma taxawee nga jëm nu ngi ñaan yàlla mu defal nu tawféex may nu kàttan ci barkeb xasida gi Sëñ Tuubaa dafay wax ni ci tukki bi daje nag waa asaabul kahfi jëf leen teeg ñoom ba jël seen bóot asaabul kahfi mooy juróom-ñaari gaa yooyu ak seen xaj ba yow naa boo leen di lim mooy yamlixa muksalina muslinan marnus dabarnus sasanus kafustatius xit mo len leen juróom-ñetteel ñoom ñooñu señ mulu dañoo bari secret xam nga ñoo tudun ca xuntuma ñetti téeméer ak yu tek alquran nga cey wax limuy bari waye ci mujj ga day wax ni bàyyi leen werante bi ñom dañu nekkon ci dekk gem yalla buñ ko dé sara nak duñ dugg ci xase dañ ci laal tous rek te buru dekk ba contrôle leen comme yi buur yi taxawal yeen say lu melni ni ni téré nañ juma yi ñom dañu opposé wu gouvernement bi ni li yalla wax lañuy def ci leen gouvernement bi xatale daw dakk lañu dugg ci Allah ba dem dugg ci mu xuntu dafa ñett téméré at yu tek nangam dafa na salat mi mi'ati sinin was daru tisam mhm. fofu la yalla jeexale wax ji da ndax ni fala takku mhm. wala wala bisoo fi kaafihim salaata mi'atin sinin waaw was daru tisam wa kay bo mhm. nee ci mujja yalla yàlla na ngeen bayyi werante wi nak bir wax ji jéx jeex falaatu maari fihim jaratu len ngeen di werante ci ñoom sëñ Tuubaa nee na man ma ci ndax faratul hadab man xamna limba hmm kon gaay yi ñet ñett rek nangam ñet téeméer nangam suñ borom bi waxé la faré mu gaay yi mané balen ne ba leen werante ko sëñ Tuubaa man werante ma ndax xam naa lim mu xamee lim asaabul kahfi lima ci don boros rek moy fi eh, yeen ñi ci jotaay bi ku bëgg sa kër aaru ab say say du fa dugg sacc du fa dugg même bu né jigen ci don digënté bëggul ko yakal gaay yi seen tour yi ni kër googu bi suul ko fa kenn du ko gis nga ko. waaw. waaw juróomi ok ah, suuf. waaw kaw. Mm-hmm. waaw mm-hmm. mm-hmm. yàqu bi ci suuf na. waaw ah, ñoo ci ne. dara du gis nga ko noonu. dara nu fene su ko jàll nee na noonu laa xamee kal anbiya fi man taxala an adat anbiya yi soo leen boole ak rusul yi cent vingt quatre mille lanu werante bi nag bari na ci ndax nii dañoo wax ni yonente yi ñett téeméer ak fukk ak ñett ñaar fukki juróom la alxuraan tudd juróoma ci gën waaye am na ñeneen ñu contre loolu ni manam 124 yi moom kenn génn ko waaye lim bi nga xamni mom lañ wax noonu lañ ne ëpp nako seigne touba Tuubaa man xamna naa leen ñoom ñëpp waxat nako ci bi wax ja ay wa al faratul kal anbiya aywa كالأنبياء في من تالا أن rafatu رافقت آل الكاف فارقت الأدت كالأنبياء في من تالا أن أدت رفقت àndandoo noonu man bi may dem ñan mu ne ahlul kahfi rafatu ahlul kahfi waa ahlul kahfi ñoog man bi may ànd ñoo ñoo may dem ñoo ànd faaratul adad bu kenn weranteeg man xam naa seen lim ñaata la kal anbiyaai naka cent vingt quatre mille prophètes yi ya ciy yu ñu yónni ak ñi ñu yónniwul te solo leen xam naa leen fii man taala an adad yàlla bi aji màgg ji génn na ma ci ñu uppule seen lim bi xafafta mawti suñ borom waaye fan na lool sama faatu wa baasa yaa samat yónni na ci yónnee nga ci man yow kilifa gi yaa man yaqiini alxuboor wal kamat yow mi nga xam ne wóoluloo nga ma bàmmeel yi waxul sama bàmmeel de bàmmeel ku nu suul ku nekk sëñ Tuubaa nee na xam naa la ci biir génne naa la ci fitna wajal bi jaayi la xidmati wax jaa ngi doog a ñëw foofu la bëgg a jëm si wajal bi jaayi la xidmati xam nga dañuy waajal xasida gi cent maanaam trois cent treize yi euh, nekkoon Badar ñoom ñoo dajale ñoom ñëpp ñëw seet si Sëriñ Tuubaa ni ko dañoo bëgg sa liggéey bi nga yóbbaale nu géew wajal bi jaay la simi xidmati sëñ bi daal laaj mi da ngeen di teew ci baatin ma yóbbaale leen wala da ngeen ñëw ci saayir ma àndandoog ñi yéen wajal bi jaay la simi xidmati ñu ni ko dañoo bëgg nga ñaan yàlla mu dekkal ma nu gàdduwaat suñuy jaas si topp la loo def nu def ko wajal bi jaay lazimi xidmati kon nanga xam ne ahlul badrin kiram ñëwuñu ci baatin ñu mel ni ay gént di jàppale ci lu ñu leen gisul wajal bi jaay lazimi xidmati jëmm par jëmm lan doon ñëw seen tuwi di tudd seen tur kenn par kenn fii wajal bi jaay lazimi xidmati suñ borom maa ngi lay ñaan ci barkeb gaa yu baax yi sama liggéey bi nga nangu ko bala ma départ ka xidami saabi xayril umati noo nungu la rasulullahi nungu la ko aboubacar nungu la ko omar ak aliyu nungu la ma noona premier kan ngay jëkk tànn yow yow seigne touba rijal badrinil kiram ci gaay yi nga xamni ño doon xex badar ba sahid ku bokul ci seen limba ba bokk fekke wo xex ba mën a toll na ñoom ëllëg ma ya fi daare ni fi kulli maram seigne touba ni 313 ngeen wax ñi ni 314 ñi 315 15 ba man la wajal tawassuli ubil langi ma dugg ci bir nga xamni ku fekke wul mën mëna to ca bokk bi im ibaada sëñ Mudu xam nga wàccal bi rijaal badril kiram jàpp mhm. fa tuuti wàccal bi waxuñu ñoom ñetti téeméer yi mhm. ak fukk ak ñett waaye seen fas yéen doon war ñoom ñooñu wajal bi i rijaala badrinil kiram du moroomu wàll yu weeg ci yàlla rikk di def di dindi wajal bi i rijaala badrinil kiram ñetti téeméer yi ak fukk ak ñett moom laa la wax ni la wajal bii rijaala badrinil kiraam ab yonent boo xamante ne rasulaay bokku ca wajal bii rijaala badrinil nga ñetti téeméer yi ak fukk yi ak ñett yii ma lay wax wajal bii rijaala badrinil kiraam sëñ Tuubaa nee na waxul ñoom waxul seen fase waaye seen teg yi doon war wajal bi rijaal badrinil kiraam su ëllëgee su suñu borom wàccee teg teg ko fay fay teg gi ba noppi doo ko fay borom teg gi. wajal bi rijaal badrinil kiraam. fay gi ñu fay teg gi képp moo ëpp doole mboolem wali wonaw ci kaw kaw jamono. wajal bi rijaal badrinil man nga koo gëmee fii am na ñoo xam ne bu ñuy liggéey par heure lañ leen di fay. wajal bi rijaal badrinil kiraam. dañ leen di fay déplacement fay leen heure ba pare jox leen li ñuy li ñu yóbbaale. wajal bi rijaal. rijaala badrinil kiraam kon sëñ Tuubaa nee na ñooñu seen tegg rek du moromam gaa yi wañal bi rijaala badrinil kiraam soo demee ci saar wal haadiyat dabbaan fal muriyat xadan fal muqiraat ba mu jeex ñoom lay wax wañal bi rijaala badrinil kiraam ñooñu nag mel ni ñoom daa mënatu la nekk sëñ Tuubaa xëy xëy ni cëpp ni man ci ñoom laa bëgg bokk rijaala badrinil kiraam rasulaay nee na ko te ngaa bàyyi ndax ñi bokk ci ñoom jaasee koy may ak tur deret wajal bi rijaala badrinil kiraam borom bi bind gaa yi ne na ko tol nga ni ñëpp may naa maqaamam xutbaan yi ahmadu tenkeyem wajal bi rijaala badrinil kiraam sëñ Tuubaa ne ko maqaamam xutbu may nga ko keneen man kon loolu taxumaa jóg soxla naa la ko ëpp wajal bi rijaala badrinil kiraam bu sëkk ci yàlla ba woote tariixa am na ci réew mi am na ci yeneen réew yi loolu taxumaa jóg rijaala xotti lang gi ma dugg ci biir gaa yi ñii foog ma bokk ci ñoom wajal bi rijaala badrinil kiraam suñ borom ne ko naa la nattu deux cent quatre vingt yoo xam ne benn bu ne lu rey ab yonentee ngi ci nag jël bi rijaala badrinil kiraam waxuma deeca waxuma daw waaye boo ne oh ñàkk nga lépp loo amoon. wajal bi rijaala badrinil kiram. Sëriñ boo xamante nag boromam keroog ne ko maa ngi lay laaj xeetu daw yi ban moo gën a woyof. wajal bi rijaala badrinil kiram. parce que borom bi ne ko raf ci daw la bokk Sëriñ Tuubaa ne ko du ko def. rijaala badrinil kiram wajal bi rijaala badrinil kiram. xam yàgg na bindal sama tur te ma ci géew ma liggéey bokk ci ñoom. wajal defal ma rijaala badrinil kiram ma bokk ci waa anul badal kiram yi suñ tey tey tey ma ya fi daarayni fi kulli maram ci la suñu borom ubbi kasu bi ñetti téeméer yi ak fukk ak ñett ñëpp teew ma ya fi daarayni fi kulli maram ba ñëpp teewee Momadou Sëñ Tuubaa nan la wax waccal wajal bi rijaala badrinil kiraam wajal tawassuli bihim xibaada maxbuuba fi daarayni fi kulli maraam adduna ak àllaaxira bu tàggoo teg man fu ma mën a taxaw nañ fa taxaw wajal tawassuli bihim ibaada yàlla maa ngi lay ñaan waxuma rasulullahi waaye ci barke Aboubacar mi nga xam liggéeyal na la ba nga gërëm ko wajal bi tawasuli bi ibada lépp lu ma la jaamu na nga ko nungu lu ma la ñaan nan ko nungu ku ma songol naa ko daaneel maqbulatan tajru lisaada soo ma xasee tàmbalee fay nag ci barkeb gaa yi bu ma fay tey bu suwaa nga ne la ma joxoon jeex na na continuer ya rabbana salli ala muhammadi yow sunu borom maa ngi lay ñaan yàlla na nga dolli sa xéwal yi ci barki ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa alihi ma asaabil umadi mboolem saaba yi mu loon mboolem ñooñam ya mboolem waa kër ñëpp nañ kontaan fi nga xam ni fu mu musa nekk première kooku moo nekk deuxième aji dëggu ji boo xamul ki ma lay wax mu ne ko mooy kaanoon rasul daay kere ba mu génne makkatul mukarram gaa yi noonu yi topp leen te dugg ca xuntuma rafiqi fil xaalisi tasdiqi ànd ak yo rasul dugg ca biir xuntuma rasul daay di nelaw ci poojam ba jaan màtt ko moom rafiqi fil xaarisi tasdiqi damay wax ni taalibe bi mel ni Aboubacar Sadiq képp am ko ci diine doy na sëkk jarul ngay am leneen waxtan nan la Aboubacar mate ci kanam rasul alayhi salaatu salaam ba tax sëñ Tuubaa di ko tudd fii waxtan la annaay du fab xalima mukk teg ko ci turu koo xamante ni matul la mu doon waltar da annaay bi sidiqi rasul moo jëkk a woote Aboubacar Sadiq moo jëkk a gëm ci góor ñi kera ba ñuy génn dinam ñaari fa gileem yi ñu war Aboubacar Sadiq moo koy moo koy xaloon ci këram Aboubacar Rasulullah yi ala la matee gu ko de Aboubacar Sadiq moo koy xaloon xam ni lii yonente bi wat dañ ñu a génne ma ak moom kera ba yonente bi waaxoo waxtu takkusaan ñëw këram wax ko ni ko maa yow foog nu génn dëkk bi ndax xajatul fii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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر أنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وحدتنا على رسولك ولا تخصنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وخنا عذاب النار لا إله إلا الله أسري بها أمري لا إله إلا الله أدخل بها خبري لا إله إلا الله أدخل بها ميساني لا إله إلا الله أرضي بها ربي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رجال الخيبة ورجال الشهادة أهل الكسوفة وأهل التوبة لا إله إلا الله حليم الحكيم لا إله إلا الله سبحان الله الكريم لا إله إلا الله رب الحرس العظيم اللهم إني أسألك موجبات رحمة وخشائن مغفرتك والحنيمة من كل بر والسلامة من كل سنب اللهم لا تدح لنا سنبا إلا غفرت لنا ولا هما إلى فرجت لنا ولا حاجة وهي لك ردي إلى خديتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا سريح الحساب يا من لا حول ولا قوة إلا بالله الحلي العسيم اللهم يا من أشهر الجميل وستر الخبيئة اللهم يا من لم يواهس بالجريدة ولم يحتك الستر اللهم يا حسيم الحفي ويا حسن التجاوزي ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين برحمته اللهم يا سامي كل النجوى ويا منتهى كل سقوى اللهم يا كريم الصفي ويا حسيم المني ويا مخيل الحشرات ويا مبتدئا بنعم قبل استخافها يا ربي يا سيدي ويا مولاي ويا خاية رحمتك أسألك اللهم أن لا تزوي خلقتنا ببلاه دنيا ولا بعذاب نار بياه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بهدد أنفاس المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بهدد أسهار الموجودات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بهدد حروف لوح ودعوات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بهدد البداية والنهاية من المهدوم والموجود إلى الأبد الأبد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله mbokki jullit yi teew على سنبرم yàlla suñu borom ci lépp lu mu dogal ci ñun yàlla na aw yiw ci suñ kaw bu boobaa amin mi nga xam ne mooy jaamam def ko ni nga xam bu ko ko defee mu gën yàlla def ñi fi baax ñëpp ci ñu baax ñi ku ne la nga baax le du sa kàttan du sa doole du sa man-man du ab juddu nga neelu suñu borom la mu neex ko mu def ko ci jaam baax baaxam yooyu nga xam ci la sang bu mel ni mel def ko ñeneen ñi def ko ci yoon yëpp yàlla nañu ko yàlla defal bi jaay Seydi bi jot alayhi salaatu wasalaam di ko ñaan nag lépp luy tee loolu am bu dee bàkkaar la yàlla na ko effacé bu dee tayal la gu ci ñun yàlla ko yàlla dindi bu dee xol bu mel na mu war a mel yàlla ko yàlla raxas ba def ci ñun yomb ci bi jaay Seydi alayhi salaatu wasalaam ci barke sax Ramadan mooy wax ni ko woor ba ngoon nga ma ñaan ba ma ñaan ba may la ko ñaan ko bi yum ni ramadan al ahsan yal nañ ko yalla defal ni ma ko waxee hmm. ba suñu joge ci koor gi ñepp am liñ bëgg hmm. waxat ni fukk fan yu jëk yi bu ngeen ko jéxalé tegg leen seen kayima effacer leen lepp lu mëna xat hmm. yee ca top dugal na leen ci sama biir yërmande ginaaw nu ngi ci jëm fukk ñaar fukkeelu guddi defe naa yàlla nañu yàlla nangul wala ñoo dugg ci yu eh, di soññi sama bop di la soññeewaat ku nekk ci nun nga dëggal sa bopp fas yéene jéggulu yàlla jéggulu yàlla te mu wér ci sa xol ku nekk ci nun fas yéene jéggulonte te mu wér ci yow ku nekk ci nun fas yéene jéggale te mu yu jéggulu yàlla ba noppi jéggalante te jéggale lépp luy gàllankoor nit foofu la ne te boo ko dëggalee yàlla fekk la ci na ko ñépp def ci jataay bi ak budul jataay bi fi jëm parce que egg nañ fa waxuma weeru koor wii nekk maanaam dund ko àdduna laa wax daa yàggut te ku ne li nga dund nga xam waaye li nga dese xamoon mu toll profité ci dafay lu jot xam nga fi suñ borom wax ni infiro boobu suñ kay wax ak muy daw yàlla war na da yàlla ni infiro sant yàlla war ku ne da yàlla ni faskuro maanaam li des suñu digganteeg suñu dund

ken ku jar ci nit ñi ku la ku jar ngay jëf-jëf yu la yóbbu sawara amu ci nit ñi du nit ka du lamu yor du la wax du la def nga def tay ngañ-ngañ bam fof faf yóbbu la sawara yow amu du ko jar ci kaw suuf na la ko wax te aduna it ginaaw ku ne bi mu fi ñew yow rek ya ñew suñ doxé tuuti boy dem yow rek yaay dem lolou na leer ñep man nañoo andono ak groupe aduna ko Sénégal 14 millions wala 15 la mo demee aduna bi ñaata milliard la waye waxtu wo déggé diw bayé ko na fi duñ ni diw ñom dé diw lañuy wax salaw bu ñep andando won duggalo ci dara mat juni nit ñep faatoon deet ku ne sa dégg nga am groupe booga taxul ku ne sa sukuras morom dara mbaa sa dégg morom dara nan ko xamee noonu. ginnaaw ku nekk yaa ñëw ku nekk yaay dem maanaam préparer sa bopp balaa booba. li ma waxoon ca njaal bi nga rek xumb xumb yi ngay gis ak daje bi. bu ko kenn wéttalikoo lool du loolu lool du wéttal de. mukk ci àdduna te àdduna fi ne loo fi yàgg yàgg yàgg yàgg seconde bi nga fi bàyyi ko day mel ni mosoo sa dara du dox. duut na la boole ci dara it. donte yaa moomoon lépp. kenn duutu séddale ba ba sédd la kenn duutu wax xalaat balaa ci la bari na yuy xew ci àdduna fi mu ne yoo xam ne ka ko moom mu ko ci armeel yi su ma doon dellusiwaat ni bu ko kenn defee nii day ñëw dindi ko waaye mënu ci tus fu tëdd lay tëdd ñuy doxal ginnaawam lu ko neexut mu amaana sax mi ngi koy yëg waaye mënut a fexe ba àttu yàlla bindoo noonu même sunu gaa yu baax yi ngay gis rëdd fi lu ne am na ci ñoo xam ne suñ mënoon dellusiwaat dinañ lii bokkul sama yoon waaye yàlla mooy def bu la xasee ne kaay toog yow toore ngay def gaa yi cees toxal moom la wax tilkal umma xat xalat lahaa maa kasabat ñoom wéy nañu ba noppi def nañu war a def ba noppi wala kummaa kasabtu mooy ñi des jamono ñoo xam ni lu dul góor góorlu ci sa jëm ba waxtu wooy dajeek sa borom am fierté am mbégte am na ñoo xam ne ñu yàkkamtee dajeeg yàlla lañu ndax am nañ confiance ci seen bopp am kóolute yàlla xam na ko am na ci jaam ñi barke de moo njaay góor yàlla gu mag gii fi bàyyi ko booy dégg ci mujjam muy wax waa këram yi ni bu ma fi bàyyi ko na ngeen ma yóbbu fii gasal ba mu xool ngeen rokkas ma ci suuf si ba bu ma buy dajee ko xaritam la yooyu wax day dal maanaam dal na xel lool xaritoog yàlla nag yalla de noko, na ndax defal nako ko ibrahim waye ko ku ne ya ci jim la tax mu mën am waaw sabab lu gi dal ba yalla bëgg la mom ya koy jim suñu borom nak indi katanam defal la li nga bëgg te yërmaaneem egg na ci bo jeme mu dimbulé la waye fexé ba nek ci àdduna ak mom te fekkee goko te fokk nga fekki ko te li tax ngay ak mom sa digënté sa morom la mba sa digënté sa borom mba sa digënté sa bop ñet ñi lu fi jar noonoog yalla mu fi nit mënu laa mere ba teelaa añ na nit mën laa tere mere ba teelaa noyyi ci ngelaw li jëm mën laa mere ba teelaa sangu ci ndox mi nit mën laa mere ba du tey boo bëggee nelaw nelaw kon yi nga xam ni moo am importance yow ginnaaw kenn mën la koo xañ yàllaa ko kon bu nit dox sa digganteeg loolu waaw yi la amal njariñ nit mën la ko tere yi la njariñ kon jaru ko mooy sëgg ci darub nit ba dem sawara yaa xam loo ko mën a wax di jëf nit jëf ju bon ba dem sawara ya xam loo mëna def wala nga gantul yalla ci jamm gi ba dem sawara ta jëruko dajé jëruko jëru ko leneen jëru ko loo jàpp bàyyi di nga fa bàyyi loo buy gis suñu borom ma bëgg li dess ci 10 jours yi ñu jëm na ku ne jël leçon boobu na la sa bop gën lu na la gën mom sa digënté sa borom gor yalla ku bax waxna ni sëñ booy yaay daa bàyyi la bu dee moom la yàlla na yàlla dul yërmandeem danaan wax ni sama yaram mi fonk naa ko fonk ko xam ne bala maa bàyyi yàlla lakk ko danaa ci daj lu ne baat boobu waxee ko waxam dong de ñun ñëpp ci yam am na fatiguement yu ndaw rek ci kaw suuf bu la dalee yow da ngay bëgg a dem laaxira waxumaa nag mbugalum suñu borom ëllëg te al fitnatu asadu min al xatli toujours virus bii mën nga ko cee jël comme exemple exemple ak yeneen yu dul moom. eggaguñu àlaaxira de. Mm-hmm. waaye nit ñaa ngi dawante. Mm-hmm. kon ba suñ borom waxee ne ëllëg nit dina seen mbokkam ni pàccet daw. Mm-hmm. te eggaguñu fa lii kii lu simple lu ndaw lii képp tax fi ni kenn du jege kenn. loolu loolu loolu njàng mu rëy la. kenn nangootul sorente leen. te yaram yàlla ne woon ànd leen. moom moom mu ñëw ni cëpp ci ñëpp waxal seen ni sore ñeneen toog leen seen kër kañ la suñu waxoon ne doxal farata sa noppi ñu lànk yàlla waxoon na ko bu yàgg hmm? kañ la waxoon ni set leen ci raxasu ba tax man ni nu jàpp juróom yoon xamoon ni njàpp rek doyoon na fi ne lii docteur sooy wax njàpp képp cinq fois ci journée bi yoo xam ne boo teeyee boo jàppee njàpp mu sell mooy raxasu ñetti yoon sëñ bi galax ndi ko ñetti yoon sarax ko ñetti yoon salmu ñetti yoon massage ci bu fere te fekk nga nga tàng ndox mu doy ci sa loxo loolu ko gën a set soo xëyee def ko bëccëg def ko ba ngoon set nga kon bi ñi dañoo bi ñu xaaree ba dëgg ñu doog yoo xam ne def leen ko ñun doomu aadama dañu am retard bu rëy waaye suñu borom waxoon nañu préparé leen seen bopp ndoog cee jëm yëpp nag dafay tegtal ni yàlla xam dafa bu guddee du fanaan àll en tout cas muy góor muy jigéen mag muy ndaw muy nu fi waaye mën a mel boo gisee wax la ko ba nga di ko naw waxtu wu ne tey ji denc nañ ko bu ëllëgee jàmm am na xew ginnaawam loo xam ne bu amoon bu fekkoon bu ko fekkoon du am te du di duutu jóg wax ci te séparation yi day daal di am ci saasi foo fekk groupe donte ñoo bokk benn baay donte ñoo bokk benn ndey waxtu bu faatu amee séparation am mhm. da nga daal gis diw féete fee diw féete fee lu seetu la yoon ku ne dem seen yoon mhm. àdduna foofu lay mujj tasaare ko séddale ko ku nekk dem ñu dem ba yàgg lépp ñoo ñàkk yàlla jël ko mhm. ko dara da koy man suuxal mu jeex rek bu kenn dox seen digganteeg jaamu seen borom bu leen dox seen digganteeg jaamu seen borom bu kenn dox seen digganteeg wax li ngeen war wax ak def li ngeen war a wax ku tardé nag ba topp àdduna bii bëgg lu la nit ñi wax nga tontu ko yow dooleem déedéet da ngay waxante di waxante ba xëy faat dem sawara ki am sance mooy ki ni pat yàlla te xaw mi yaxal bi ma xafara li rabbi góor gu réy googu la maanaam maanaam leçon bu réy bi mu joxe tuuma ju ne teg nan ko mu të nu fitnaal ko ba rey ko kere ba mu tàbbee àjjana te fekk pas-pasam dëggu woon moom maanaam daa yërëm sax ñi ko rey ni aka neexon gaay yi man fitnaal bare ma xamante naa nga ji ma nekke waaw bu dëggul woon ginnaaw dee mënta ñak day dee ba fare am problème moy ki gamon yont yalla mossa te nonu mu mel nak ñepp non lañ mel ma ngi leen di wax ni mbubb jaru ko ñak yalla aw di jërul ñak yalla ak takay jërul ñak yalla ab lek jërul ñak yalla ab sey jërul ñak yalla kër go dëkk jërul ñàkk yàlla oto boo war jërul ñàkk dara ci kaw suuf lu jar ñàkk si ngërëmul borom amul ndax lu ko xañ da nga fecc dem ala kulli ala kon fi mu nekk daal bay wona a jàpp jéem suñu borom muy suñu premier ami jéem a defar suñu jëf te bañ a def nit ñi ñu lay tardeel koo mën a àndal ngir yàlla ci jaamu ko ak ragal ko jàppal koo ci fi nga jëm jëmu fa booy boo teel ngeen a ñaanante léegi teelee na ñaanante moo xam ne mu def na ko def ku mën a doon ceew na laa la wax ndax lu la wét li sa bàmmeel ëllëg dañ koy fay fay la ku ne yor sa mbuus nit dana jur doom boo léegi nga dem àjjana mu dem sawara wala mu dem sawara nga dem àjjana nit dana takk soxna ëllëg yéen ñaar ngeen séparé kii dem sawara kii dem na ku mën a doon bu ngeen bokkul lu ngeen di def lu ngeen bokk fu ngeen jëm suñu fay la yoo ko mu gàtt nee na adduna moom ay pexe ki ndaxante njuuj njaañ man na fi am ndax addunaa ko baaxoo waaye alaxira moom ñi dëggu képp ay ànd ñooy am ñooy bokk fu ñu jëm tam loo doyloo nag doyul loolu loolu rek laa bëggoon a wax di ñaan yàlla jéggal te jéggal leen te teg nu ci saata mustaqim loolu mooy sama yéene ci maa ngi ñaan suñu borom suppi gi tàmbulee ci sama jëmmu man li ma doyee la yàlla ko yàlla dindi waaye maa ngi leen koy ñaanal seen bopp dara jëru ko fi ko fi dof dof lu mbaa ngay soxor soxor lu mbaa ngay tayal tayal lu balen ko gessam rek ta dem yeen aduna gi kep bala mo genn aduna dana ko réccu waxuma bu demee alaxira yàlla xam ko ab yafus du mi beta mukk ci kaw suuf laq mi beta mukk alaxira jéem a ñag ñag rek loolu fi nek de jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah ñu fas ko yéene deg fas ko yéene jëfe rek duñ ci doli dara lu di fatali bu subaa ci alxames yi incha allah mm-hmm. ñu fas yéene setal mbaar bi ak mukkat yi soxna yëpp ñu maase rawatina mukkat yi njëkk yi ñu laal ko mu daj ko ba nga xam ne dana set góor ñi euh, machine aspiration bi ne ci ji biir jumaa ji ñu fas ko yéene aspiré euh, poussière bi mm-hmm. fëggaat ko bu baax a baax dañuy waxoon ci aju aju ma ñi ñëpp nañu takkatoo mm-hmm. te fas ko yéene saxal nag bu ko def ñi ñëpp ñuy teel a ñëw aju ma ji nga xam ne mbiri mbiri dem yi dana fekk ñi ñew ni taxaw organisation yi rek comme aduna dañu xam manam jamono bi daa war a ni soppeku na ñepp xamane ñi ñiy wat nañ xamni war na suñu ñu am taxaway lan ci jima yi nga xam ne lu waaye teel ñu mo ñe fekk ñu fi dinañ la orienter teg la fi nga wara tek même bu aljuma ji jàlle ay fi ay at ñu taxaw am taxaway bobu rek nek ben bonapi set wich ñu taxawu nit ñi ci julli jima yi di organiser wu loolu lépp laaj na ay daje yoo xam ne war nañ ci waxtaanaat bu baax a baax bu subaa ñu fas ko yéene waaye kàddu gi sëñ bi euh, ni mu ko dugalee ci xol bi moom laay bañ mu rëcc ñu <laughs> nan ko fas rek euh, dëkki ko noonu hmm. jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa ñu raxas kii bi ñu bàyyi xel sart yi rek hmm. defaroon jumaa yëpp sart yi maanaam yar sa bopp bala ngaa ñëw ci raxas bi hmm. yaa nga dendal ku def nga war a def rek doy loolu doy moom yomb na te mën ngaa doy loo ni fi nu nekk yàllaa ngi ni suturaal kenn déggu fi ku wopp kenn déggu ko feebar waaye bu nee préparé leen seen bopp it yow defal li nga war a def rek toujours loolu laay faral di wax kon doxal fa defe ko noonu te su ngeen ñëwee ci jullikaay ba nii ngeen di nii ngeen jigéen ñi bu leen ko def ngeen di ci ca jàkka ja ni ngeen def nii góor ñi def loolu mooy ndigal li ba ñu weesu rek loolu moo fi nekk xel ni li ñuy tuddee espionnage mooy saaru agent secret ku dul yàlla suñ borom mënul suñ jëmm yi dara xam nga laa yadxulul jannata annamam ab rambaaj moom du dem mukk moo bu ko xamantee la génn ci la ne waaye toujours na nga yëg ni rek foo nekk fu ne di def lu baax iblis dana yabal benn waaye ne ko demal xool ndax mën nga caa yàq dara mën naa nekk ci koñ bi mën naa nekk ci kër gi mën naa nekk feneen moo tax misère yi ngeen war a jël rek da ngeen ko jël expérience mooy mooy ku lay yëddu loolu laa bëgg a wax ndax ngeen xam ko ci wolof bu génnee kër sëñ ba ci leelan ne noonu ñu ngi ci li yàlla digle ak rasulullah sëñ Tuubaa wax ko ci lool lañ ne jéem yar sun bop bala noo kenn yar tek sun bop ci yoon bala nu faa kenn teg ku ñu fekk na ci liñ nekk lo nekk lu mu bax bax da nga gis ku ñew nekk ci àll ba dem leen seet leen doo xam ci lu nekk te dama bëgg man asan fep fu ma nekk ma yeen ku ma fekk lu tax ma ku tax duma daw duma day duma duma sori waaye dama bëgg di am dëgg nak dama bëgg di am dëgg kon nag maa ngi soññ sama yéen ñi nga xam ni am naa leen ak ñi may dégg na tegu ci yoon la ca suñu kanam suñu kanam la yàlla na yàlla defal jàmm. ok jërë ngeen jëf. foo toll fop ab socc defal sa ne su fekkoon bëggalu leen bañalu leen coona walaay bu yëgoon defal na ko coona <laughs> ah kon dinaa ñaan yàlla mu faratal ko ci yéen ku gën a yiw kooku koo xam ni baaxam egg na ci soo naree naan taxaw mun a toogal ndax bëggul nga naan di jërëx jërëx ba far coroxaan ngay guux mu ne bu ko naan naanum mbaam xoolal loolu man da ngay naan lu yem teg naan lu yem teg jàngale civilisation lu di ban la bul noyyi ci kaas bi ngay naanee xam nga loolu lu bari bàyyiwuñ ci xel ñu ngi koy def noonu jël potum daa dëpp sa gémmiñ dinaa naan di noyyi ca biir loolu mën na laa juróomi sa mbaa ba kumba te pour ñun garaawut médecin yi xam ngeen loolu garaaw na noyyi ci biir ndox mi ngay naan ndax léegi sii nii léegi koo noyyi mu raw baat bi mu fi teslee ci julli gi léegi xam naa gaa yi abal ko xam naa moom foog foog soxna si wax ci <laughs> waaw kay fi ne nii moom moom lu ko neex def bàyyi taal rek kàttan xam nga mën ngaa def nii sa kii bi waaye yoonam ci nii ci ñun ñim nekk <laughs> yu mel noonu waaw góor góor ba tey mais mais système yaa ngi fi defal nii tesli sa teslig bopp waaw kenn bañ cee bopp gis nga ko mm-hmm. koo xam da lay wax ni booy naan sax bul noy ci biir mm-hmm. ndox meeg kaas bi sallallahu alayhi wa sallam ah booy sax nee na jëlal sa loxo taf sa gémmiñ xanaa kon ki ñuy digal masque fekkoon na moom kee préparé ko bu yàgg sëñ bi même booy nelaw mu ne bu ko def ci biiru nit toog say gars yi di nelaw bay nga ne xën danga benn yoon di xaram teg ca lu bare bari nag yoo xam ne mën la jaa fekk xoolal boobu civilisation même boo toogee ci nit boo bëgg a jóg buli li sa jit benn yoon bu lee ko mel man fudd teg ca talal ndi fudd mel yaamu dekk bi sala samni du civilisation bu ko ken def ah cap dane bo xasse bay tok togal bu baax bo waré jog nga jog ndànk gis nga lolu nga fi ya ko mom waaye bu lis del soirée da ngaa ni déri ci laal bi de bu ko def de yëpp yonent bi koy tere te sariya la dafa bëggoon booy jegee yére yi nga yoroon nga lem ko bala ngaa dem lal bi nañ ko yële baat waaye bu ko bàyyi noonu nga xam léegi célibataire nga xam ne gaa yi tàmm nañ ko waaw waaw ba tey xam nga ñoom nañ ko dégg fii ne loolu lislaam sariya da ko tere nee boo xam ne boo ñëwee fekk fee daggatu pantiloo ah, sagaru simis mbaxana mu màgget lépp salfaañoo nga jógee fee rek mais yow ba jàpp na ngaa sonn rek mel yaa dëkk bi ñëw rek ni këpp ci lal bi ay danse la xam nga doon ci àll bi xam nga man gis naa ko ko def jaan maata ko waaw noonu la ko ndax lalu ndësan la mu mu xëyee fi dem liggéeyi léegi nag affaire dugg ci ci kër ci néeg bi xam nga kon léegi wax yonent bi sallallahu feeñ na ci moom mu ñëw ni këpp ci kawam ah waaw comme kee moom moom fu mu dugg la doon seet fu salte fu mu dugg te yow da ngaa salte waaye bi ngeen dajee yéen ñaar dootoo ko defati mukk xam nga ni yàlla terewul waaye am na beneen waaye bu ba ko tere yu mel noonu danga koy bàyyi xel bu lekk mukk taraxasuwoo bala ngaa lekk bu lekk ba ndokk mukk ndokk mukk taraxasuwoo est-ce que kooku dana wax ne fomp ko ci sa bopp ba noppi di du barke sëñ bi ah yaa ngi tooñ bi bu ko def même boo amul pat boo boo broso daan fiis mais soo kii xanaa yu jar ñaar dërëm na ko jël dina dëgëral sam siiñ dana weexal say bëñ dana neexal sa nget da nga am tuyaaba fi ne soccu soccu bu leen bu jàpp ni yàlla da ciy fay nit yàlla da ciy fay nit koo xam ne bi muy dund na ba bi muy génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ngi ci gémmiñ gi te boo mënatu ko soxnaa ma jël socc bi yéeyal ko ko ba mu nooy mu sexal ko ko ndax xool na xam ban saabale ci yi mu yor mu bëgg a socc te mënta wax bi xoolee xoole ah, soxnaam Aysa moo ko wax ni ko dangaa bëgg socc xanaa mu ne waaw mu àbb socc waaj ndagg la ca tooyoon yéeyal ko ko moom ba mu ci mu sexal ko gémmiñam di ko ko soccal ndax boo yonte amul kàttanu du socc boppam su ma noonu a ñàkk du ko def amatoo kàttan socc sa bopp waaye soxnaa ma jël socc ba moo tax soxna su baax yàlla nañu ko yàlla defal soxna si baytaal yàlla nañu ko yàlla defal daf lay yërëm daf lay toppatoo daf lay yët du la bàyyi benn yoon nga wéet xam nga di gunge sa boroom kër di ko gunge ba mu egg ci ci dee nga di ko socc teg ko sa pooj di ko tuddloo yàlla yow jigéen soxna siiw yalla ko yalla def. tay may nañu tam borom kër yu baax. yu mel non dañ koy bayyi xel yu dégg nga ko bul dugg ci neek ta taloko waxtu timis xolal yii yëpp mu koy jàngale. néegub timis dañ ko lan moytu bu njëkk mag ñi bi amul dañ xuyet ko nga jël benn xalu safara teg ko ca digg ba yaa ci fourne wala nga al ba tak. tàkk am na ñu sax ay xeer. parce que seytaane dafa yàpp marax yàpp njolloor nga yónni ko ne diggante deux heures trois yooyu mun na bul yónni ko ne ci njolloor gi ñu léegi suñu yoon kenn ci toppatuwul njabootam waxtu ne allahu akbar timis di ko ndodd fekk julli wuñ ko ba ca kanam daaw ñu nungu ko ne dox ko daaw nungu ab jeeg dox ko wax ma jigéen ju ëmb léegi dañ ko faalee fi ah? suturaat sa bopp ci col léegi bu dee góor bu dee jigéen kilot su ndaw lay sol topp àll bi da ngay da ngay moo tax farata yaa ngi ni gàñ dégg ko régal duroo si ni gàñ avortement yi kenn mën na koo wax parce que nit ñi suturaatul suturaalatuñ seen bopp lépp sallallahu alayhi wasallam dafa daan wax yii ma leen wax nii dafa jar di jàngat dafa jar di jàngat fi ne fot ndab reer ci ni ngeen def ndogul nak wacc fa ndap la mu taaju jëm kaw ba heure bi ngay defar ci xëdd nga ñoo doga jël ndap la yow ni ci ngay préparé pour yak ci xëdd fek iblis sawna ci bu yak xam nga seytaane ay dese lay dundé iblis du lek ci ñam bu wess waxuma wotu du yalla waaye yax goo seeñu ba teg ko fa nga ko teg bu guddee fi ci lay ci lay ci lay seeñu bu dee bool bu tax raxasu ko noonu la koy def te moom baadoolam egg na ci moom day lekk riyaab bi iblis fi ne bu sëqee mbir ba sex ko ba yëng yëy ko ba mokk cafka la lay muucu du lekk ñam wii ñuy lekk da koy yadduwaat ca bool ba nga xëy suba yow lekk ca sab xol wow koŋ dootoo gëm yàlla rey na la bu yàgg Ah, xolal virus yi nga xamni ku nan cib kaas te yor ko bonane mo dal rek. ibi yor na virus bu ko raw. Mhm. ñu bo boo ko ci ndab même boko mën tax depp ko depp ko bu soba bala nga koo nga raxas ko mhm. bu dee fii am xaj nga xamni ne xaj dañuy wax fu mu xass lek mhm. juroom ñaari ndox dañ ko ko def manam ay suuf da ngay bolé suuf tabassé ko ko na noppi ko fop tabassé ko ko raxas ay ndox moy tax tookeem bi ne ci gemiñ ndax xaj dafa am benen mbir bu ne ci gemiñ ci bu bugg bu nit yuutam moom mus mi ñoyam yem mus ko dansé la te ngeen ni fii son bokkum taalibe fekk loolu andiwu ko fi na nga xamni mom du fekke sa cionu mukk mom na nga seetlu mus ci kër waxtu borom kër gi waji fat dina taxu Kan lay ñëwaat mooy ceex mooy bis bu ñuy dëjal ba yàpp bi am ci nga koy gisaat mu fi jigéen am na secret bu tol noonu mm-hmm. moo tax di leen may baax na waaye say mbool say ndab nga di ko setal te di ko dëpp ba ba soxlawaat ko loolu moo gën barke de moo njaay leen découvrir ndekete salle de bien yi sax mm-hmm. pat boros bi ngay borosoo te ñu gën a bari ci ñun dañ ko sàggane fa nga koy teg ndekete unk mën na ko faa fekk te unk xam nga ne fu mu saw ku ko lekk musiba dal la hmm. tooke yu ci nekk ci moom ma catu làmmeñam maram noonu la mel noonu la grave te mënoo am sa kër lu mu jekk-jekk ba dafa dugg day ñëw loose te du la faale du la fay lu wees bu tax moom gaañu rek dafa nekk yow nag nga war a bàyyi xel sa bopp yooyu yëpp rasulullah sa koo jàngale hmm? kon nit na fonk boppam xool sëñ Tuubaa ni mu yiwee colom gu weex gi ni mu fonkee njàpp ni mu fonkee woon soccu même gaa yu baax yi da nga leen di xool nañ ko bàyyi xel ba ci say we fii da nga gis koo xamante ni day jaay di affaire wu gér yi nga gis baaraamu sànq lañ ba mbaa mu bàyyi weewa mu ne sell sellëral te moom kat ab jullit la boo xam ne day jàng alxuraan di wird xaw ma lu mu ci jublu mais xamul li xew yooyu dañ koy taayee ba microbe du dugg ci diggante wee wi ak ak ak lu xonq lii mm-hmm. loolu la waroon demee mais léeg-léeg saa yi ma gis sama mbokk taali bi kenn di ma nuyu mm-hmm. damay xam yow xamoo li xew xam ne kon yooyu yëpp boo gisee ma leen koy jox nan bàyyi xel doxin yi koo dalay tere sallallahu ba tere la muy buubu mm-hmm. xam nga loolu boo solee mën a yem fo xamante nii boo romboon sobe du ko takk ndax lan ko wara julli wa mbedd momo ko xamoo lu fi xew sa day téré ba téré lako bu lay jigen mu ni lu ni ñad ñad ral mu la bu ko sol ndax daf lay nat ku lay kuy and ak yow ban na boy julli yow goor ubil say tank. boy julli yow jigen teyel say tank. parce que bëggul lenn lu la ci civilisation bu mel non yep yonent bi sant na ko wax wax wax kon ku ci jël ben ci mom ben jikko ko ko nuru kenn man la tém yalla li ma wax lepp ni mu bare nga fexe ba benn amoo ko di sàggane sa bop sàggane sa bop ba ba bo dugg bu ñepp dajé yow dañ lay wutal ben tur né yow yaay baadoole bi nga nungu tuddé yow ak baadoole ni mité nga nungu tudd ñepp tuddé lako dara jaru ko ci kaw suuf kon nak yi ni nu tek ko ci mujjuk lima doon wax boole wala ko ci jema defal sun jëm yi bu señ bi wax dal ni yalla nag ma defal sama jëm ji mu nek bisra kullu rahi ku mané jak rek nang ma sop ndax ni mu yiwe wax nañ ko roy nan fexé ba ku nu gis sop nu lolou ko am na ci droit yiw ak bax bu ko ken baye ken waye japp ni waro yiw japp ni waro bax bari aduna jor ko xoolal ku lay topp ba yonent bi ne boo solee mbubb bouton yi bu ñu ko waree tëj na ko tëj sallallahu alayhi wa sallam bëggul sa sàlle baat ni ñàgg ñëpp naan diw yooyu léegi na am na ñoo xam ne ñu gis wax ko moomuñu seen làmmiñ ko loolu lépp nañ ko bàyyi xel yàlla nañ ko yàlla fayal muhammadin tabibina al hakimi aska salaamay rabbana al karimi tabibina mooy médecin sans frontière boo xam ni moom qualification ci lu ne la. domaine yëpp boo la nee jàkk rek expérience am da lay wax ni nii ngay faje sa ruu nii ngay faje sa yaram ndox laa yabal nag ci sababi àdduna yii ndoktoor yi wax te loolu la doon dund moog waa këram yëpp ba suñ borom xool ko ni ko ni nga gën a mate nit ñi ci bind noonu nga leen gën a mate ci jikko waxuma waxuma akmalul wara xalxan wa xuluxan nee na saxara lépp mu wax mu ñëpp teg seen bët kon nag audio boobu ñun ñëpp nañ ko am digluwaat ko ku ne imposé ko sa bopp nag ñu nekk ci kanam mbooloo yi bu ngeen amee kawari bopp kawar moom wat ba mu set mbaa bu sëqee dee ko dee ko dee ko diw te di ko peñe ba muy ñàgg mukk comme sama xarit yi ni ñu mel nga di ko dugal ci biir nit ñi. Mm-hmm. ndax ñëpp bàyyi xel. ndax ñëpp bàyyi xel. yonent bi sallallahu alayhi wasallam léppam dafa ku mel ni man képp moo ñëwee bàyyi tes ne tes seeni tànkam nga xam ne lal boo tëdd lalub jàmbur boo ko ci diree xur dara bokkati ko. te yógaloo ko sax saw yaram nag. Mm-hmm. na nga ci bàyyi xel bu baax. Mm-hmm. yàlla xam na ko si am na ñoo xam bu tëddee sa lal ba jóg. mokk la mën nga caa jëlee tooke joo xam doo xam foo ak a jóg moom loolu yëpp sàggane sa bopp na yàlla def ko nit nit day góorgóorlu ci boppam nit day góorgóorlu ci boppam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu